gërëm ci li ngeen ànd ak ñun dañu ñëw fii Thiès comme ni ko président Malick Gakou waxee léegi pour nemmeeku mbirum bindu bi ci liste électorale yi est-ce que mi ngi aw yoon wala déet waa li nu fi gis mooy euh, commission yi doyul ñi ngi liggéey nag commission yaa ngi liggéey nee nañu bés bu nekku ci nekk di nga bindu lu téeméer baax na mais doyut il faut ñu dem euh, ci fanweeri commission wala ñeent fukki commission loolu mooy mën a tax liggéey bi tegu ci yoon am na sax ay gox yu nga xam ne fu mel ni euh, Touba Toul Ndiéyène Sirakh Xombal Ngunjaan ba foofu moom euh, liggéey bi doxu fa dara ci li ñuy wax donc il faut que euh, li ñu d'accord ak président de la république ñu ñu réglé ko maanaam yokk commission yokk boo xam ne bi nit ñi dootuñu fajaru ci commission yi pour mën a bindu loolu moom euh, lu ñu fi lu ñu fi nemmeeku la. que am ngeen qualité qualité ci bi ngeen xoolee euh, maanaam euh, commission yi maanaam maanaam vote bi li tubaab di wax processus. waaw da ngay départ ba keroog ngay arrivé départ ba keroog ngay arrivé point boo xam ne la mu war a doxe doxewu ko rek du dem moom moo tax mënunoo wax a Euh, lu bare ci kat ci côté boobu li nu fa gis daal mooy ay ay mag mag yu jigéen ñoo xam ne nee nañu ñu ngi fa depuis une heure du matin deux heures du matin trois heures quatre heures du matin ah yaakaaroon nañu ne waxtu wi dina fekk commission yi yokku euh, président bi de de la république bi ñu toogee moom daf ne dinañ yóbbu commission yi ci juróom-ñaar téeméeri commission suñ ko yóbboo juróom-ñaar téeméer Thiès am na trois cent mille ñetti téeméeri junniy nit yu fi bindu. war nañu mën a am commission yu doy ba ñetti téeméeri junni yi ak lu topp man a bindu parce que su ko amul nit ñi duñu mën a bindu kon nag ñi ngi insister vraiment pour que ministre de l'intérieur euh, gouvernement bi ñu yokk commission yi yokk bu doyee doyee doy ba nit ñi mën a bindu ci normal. am na commission yoo xam ne nemmeeku nañu aussi seen jumtukaay yi demewul noonu ci jëm ci wàllu matériel euh, waxuñu nu ko nee nañ daal ñoom ñu ngi bind téeméer téeméer ak ñaar fukk téeméer ak fanweer mais dafa doyut. il faut ñu yokk commission yi ba mu yegg fanweer wala ñeent fukki commission pour que euh, mbir mi mën a dox ak commission itinérante yi commission yi aussi war na itinéraire mooy ñuy dem ci dëkk yi dem ci quartier yi di fekk nit ñi parce que su dul loolu du sot du du sotti. liggéey bi daal des na. ok ngi war di wax ni euh, le ministre de l'intérieur mënul organiser élection yi lan ngeen mën a teg ci loxo askan bi bu mu xam ni euh, revendication boobu am légitimité. li ko ni ko président Malick Gakou waxee léegi ci ci français dañu wax ne maanaam élection mooy kóolute wuute wut ak suñu xaalis bi la xaalis soo ko wóoluwut nekkatut xaalis kayit dong lay doon donc bu fekkee dañu séq élection bi ki nga xam ne moo ko war a organiser su amee ci ñi séq élection bi ku ne kii doyuma dañoo war a seet keneen loolu la Abdou Diouf defoon indi général Cissé koo xam ne soldat la du wote moom amul benn problème Abdoulaye Wade ba ñii fi toog tey nekk ci gouvernement bi nekkee opposition ne Ousmane Ngom doyu leen dañoo indi Cheikh Gueye Cheikh Gueye au fonctionnaire la amul benn problème mu organiser élection yi waaw ah, bii paa nag ñun dañu ne ab Abdoulaye Daouda Diallo man na doon ministre de parce que Macky Sall lay nommé ministre de mais kii organiser élection bi na nekk koo xam ne dina doy kenn ku nekk ci ñi ko seq loolu lañu wax. xombal mooy ni mu demee rek nit ñaa ngi rang di teel a ñëw di rang mais rytme bi dafa dafa dafa lent dafa yéex euh, ndax renseignement yi mooy par jour du ñu def lépp soixante-dix personnes loolu lu yéex la beneen bi mooy commission bi dafa yéex a tàmbali ñu ngi tàmbali le neuf actuellement bi ma laajee ci tey tey à partir de ce moment. li ñuy inscrire gu matagul 900 personnes on est ils sont à 800 et quelques ce qui veut dire que il faut ñu accélérer rythme bi leneen li ñuy wax aussi mooy il faut que préfet diligenter la situation pour que nos représentants mun ñu représenter ci commission y valablement jërëjëf. je vous remercie voudrais dire que nous sommes venus à Thiès aujourd'hui au nom du Front pour la défense du Sénégal Manko Wattu Sénégal à la tête d'une délégation très forte. Nous sommes donc venus à Thiès euh, pour nous enquérir de l'état d'évolution des inscriptions sur les listes électorales des populations. Et comme vous le savez, le Front Manko Wattu Sénégal tient à ce que le processus électoral puisse conduire à des élections libres, démocratiques et transparentes. Pour cela, la première phase, qui est la phase la plus importante, c'est la phase d'inscription. Et c'est la raison pour laquelle nous avons retenu, au des leaders, de sillonner de sensibiliser les populations pour venir s'inscrire massivement sur les listes électorales. donc, nous sommes à Thiès. département de Thiès compte près de 300 000 électeurs. Et sur 300 000 électeurs, il n'y a que Donc vous savez bien que donc, dans ces conditions, les populations ont d'énormes difficultés pour venir s'inscrire. Nous avons rencontré des populations qui se encore à 1h du matin, à 2h, même à 3h du matin, pour venir se mettre en rang afin de pouvoir s'inscrire dans des conditions appropriées. Cela est inadmissible et inacceptable. Nous pensons donc que conformément à la requête des formations politiques, le gouvernement doit prendre les dispositions afin dans département, qu'il au minimum 30 commissions d'inscription afin de permettre à tout citoyen et à toute citoyenne de pouvoir venir s'inscrire convenablement à l'heure d'ouverture eh, des centres d'inscription, c'est-à-dire à 8 heures du matin. Malheureusement, c'est une que nous déplorons et nous lançons un appel au gouvernement pour que ce déficit de commission puisse être résorbé afin de permettre à nos populations de pouvoir dans les conditions les meilleures d'exprimer leurs droits citoyens d'inscription sur les listes électorales. Avez-vous une idée sur le nombre d'inscrits à ce jour? Vous savez que euh, nous n'avons pas une idée précise des inscriptions, mais en moyenne, euh, quand on vous dit qu'il y a à peu près 100 inscrits par jour, et vous avez 17 commissions, vous devez donc comprendre que dans le mois, euh, vous avez à peu près 4000 inscrits. Et si vous avez une population électorale de 300 000 inscrits, vous savez que donc c'est au bout d'un an, on n'atteindra pas de nombre d'inscrits que nous avons dans le département de Thiès. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le gouvernement doit prendre les dispositions les plus appropriées, d'ailleurs conformément à la promesse du président. Parce que vous savez que lors de la rencontre entre l'opposition et le président de la République, l'État du Sénégal s'était engagé à tout faire pour qu'il y ait au minimum, en fin décembre, 500 commissions dans l'ensemble aux populations de pouvoir s'inscrire dans les conditions appropriées. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel vibrant aux populations de venir s'inscrire, puisque le droit de vote est un droit extrêmement fondamental dans l'expression d'une démocratie. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux populations de venir s'inscrire massivement afin d'exprimer ce droit de vote-là. que vous avez a de la fiabilité au euh, Mais vous savez, la fiabilité du processus électoral on ne peut pas la déterminer juste sur la base de cette visite que nous venons de faire. Mais ce que nous avons constaté lors de cette visite, c'est que les populations continuent encore à se battre pour s'inscrire. Et cela est inadmissible. Vous savez que l'État doit prendre les dispositions appropriées afin que les populations puissent s'inscrire de manière convenable, de manière appropriée, afin que le droit républicain puisse être exercé. Maintenant, la fiabilité, euh, nos représentants à la base vont constater de manière pour remercier et féliciter tous les responsables de Manko Wattu Sénégal, département de Thiès. Je vois que nous, travaillent dans la cohésion, ils travaillent dans la solidarité et ils font la mission qui leur a été dévolue, c'est-à-dire d'appuyer les populations pour que celles-ci puissent s'inscrire massivement afin que le droit du vote puisse valablement s'exprimer dans les prochaines élections législatives prochaines. Mais si nous voulons avoir un processus électoral

il peut être considéré comme partisan. Et c'est la raison pour laquelle nous, nous pensons, encore une fois, que le ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser les élections puisqu'il est partisan. Il nous faut une autorité indépendante et nous pensons que cette autorité indépendante est à mieux même de donner des gages afin de permettre au Sénégal d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais est-ce qu'on peut avez déjà soumis un au niveau du ministre de l'Intérieur entre une délégation de Manco Wattu Sénégal et le ministre de l'Intérieur sur l'état de suivi et des décisions et des engagements du président de la République. Jusqu'à présent, bien évidemment, il y a quelques engagements qui ont été respectés, mais nous considérons, par exemple, en ce qui concerne les commissions administratives, nous sommes dans le département de Thiès et nous considérons que dans ce département encore, il les commissions euh, ne répondent pas convenablement au nombre de qui devrait être opérationnel pour permettre aux populations de voir ce qui se au ralenti. Mais ça tourne au ralenti et en fait, en plus, les populations, vous voyez vieilles dames-là, qui se à 4 heures du matin pour s'asseoir, pour pouvoir s'inscrire sur les écoles, convenablement sur les électorales. Est-ce que vous n'avez pas des manquements par rapport au Hmm? Les machines sont pas bon, vous savez, on nous a signalé par-ci, par-là des, machines en panne qui ont été réparées. Mais dans tous les cas de figure, euh, ce qui demande important, tant que les conditions ne sont pas réunies, afin qu'on ait le maximum de commissions, bien évidemment, on aura toujours des difficultés pour permettre aux populations de venir s'inscrire voilà. Monsieur le Président, pourquoi vous n'existez pas votre droit Étant entendu que dans aucune commission, il n'y a de représentants de l'opposition. Mais vous savez, nous en avons fait la requête, euh, de nous adresser au préfet qui centralise tout. Et nous pensons que même en centralisant tout, nous sommes en train de prendre les dispositions afin que les préfets puissent donner les autorisations nécessaires afin que nos représentants dûment mandatés puissent siéger dans euh, par jour, 70 personnes à moins de 900 personnes à ce jour d'aujourd'hui. Ce Et si ça continue comme ça, euh, on n'aura pas le nombre d'inscrits qu'il faut par rapport au potentiel d'inscrits que nous avons. La commission a démarré ses travaux à partir du 9. C'est il y a un retard, il y a un retard, il y a un retard. Maintenant, ce que nous déplorons aussi, c'est euh, nos représentants n'arrivent pas encore à être acceptés au niveau des commissions parce que tout est centralisé au niveau de la préfecture. Mais j'espère que d'ici la fin de la semaine, euh, tout sera diligenté pour que nos représentants puissent valablement nous représenter au niveau des commissions.